Cheikh Moustapha santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Moustapha tëddal nang nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Moustapha yu bare bare bare ci bëgg sunu réew maanaam fonk sunu bopp xam sunu bopp ndax xam boppam rek moo taxoon euh, collaboré wul ak euh, colonialiste bi waaw ndax bi mu bi ñu ko bi ñu ko jëkkee proposé ne ko ñëwal ci buur bi nangam nangam dafa wax ne benn buur amul bu lul suñu borom tabaraka wa taala léegi itam yaakaar naa ne bu ko neexoon fa ñu baree bari jaar ba demuñu bu ko neexoon bu jaaroon foofa du dem kon wonane ne dignité dom adama bi da ci bokk ci sakul ko bopam ginaaw bokk ko ci yalla cëralee ay jikko yo xamne ne lu mu ca rek dana man am dignité way nak des koy sababu diko sakku diko di ñeme kon amon na jom jom joju moko yobbu ci walu gog ndax julli ga ci geej ga wax deug yalla bokoy set la ci ëpp jom la la ci ëpp jom lay doon nga seet euh, ngoram euh, goro weesuwul la nga yéene sa bopp nga yéene ko imaanité bi yëpp yaa malikal mulki yaa man jàllaan xawadin irham jamel wara yaa hadin wara rada ku yéene ñëpp jàmm dafa mel ne sax dacaa boole sax ña nga xam ne ñoo ko yóbbu woon xañ ko nekkuk tubaax jëm koo xañ taalibe yi bundu xataal ko dafa mel ne sax ñooñu dugg nañ ci biir ñaan gi boobu euh, générosité daawee su ko tàmmee su ko woon a gis ci ku mel noonu waaw kon Serigne Touba yaakaar naa ne bàyyi na fi loo xam ne ku ko roy da nga ci mën a jariñu bu baax réew mi maanaam li mu bàyyi ci turaasam waxuma sax Sénégal mais àddina bépp mën nañ cee jariñ ndax lépp lu baax la ñëpp lu ambal lu baax man yaakaar naa ne su ma déggee kuy critiquer wala kuy def dara damaa defe ne dafa jëlul temps wu jàng Serigne Touba waaw ndax moom boo ko liiree doo ko mën a bañ ndax lépp lu mu yéene boppam boole na la ci biir boole na la ci kon nag nañ ko gëstu ñun ñii nga xam ne ñun la war ñu jéem koo jàngale ci jàngale wu rafet woo xam ne dañuy sàmmante ak la mboxoon ñu koy wax lam daan def nu koy nettali nit ñi di ci mëna roy bu ko defé tayit fu fi way nekk diko tuddo kenn bañ ko yeb jaare ko ci yow waaw nami nami amé nak moy nga tek sa bop ci siratul mustaqim waaw lam daan def nga koy roy ni serigne tu serigne Saaliwu doon wax naan seytaane ma nga tambalé ci naan serigne bi kenn mënta melne mom kenn mënu ko roy loola neena waxi seytaane rek la waye roy nit dana taxa niru nit ndax da roy yonent bi ba am li tay bu ko roy won ci roy la ko jare ha ci jëf ci xalaat ci yene ci jikko ci makaarimul axlaax yooyee mu amoon ñu fexe ba denc yu làmbooyu makaarimul axlaax yooyu loola kon ci la amee lii tay ngeen gis ngeen ko fune fépp fess tay ta limi fess fess benen question lay laaj modi noo bokk réew mi noo ngi def loo xam ne kenn terewu ko amul benn interdiction boo xam ne yëgu bopp te yaakaar naa ne pandémie bi am ci Sénégal bi am ci réew mi ci distanciation yi ñu ngi koy respecté wax bi may wax nii moo tax ma tekki samay masque te gisuma ñu tere am ndaje te man bi may nekk ci administration la ma xamoon moo di village centre

fi nga xam ne sëriñ si dañ faa nekk mbooloo lañ fay daje moo xam ne wax dëgg yàlla day bari bari goo xam ne léeg-léeg day ëpp day jéggi dayoo te mbooloo fu ñu daje dañ leen a war a aar village frontalier itam dañ leen defal noo xam ne dañuy gën a naat réew ma nga xam ne moom lañ dendal pour ñu bañ faa indi ay fraude pour ñu bañ faa def leneen walla ñu bañ leen a ñee pour ñu mën a des seen réew xam ne seen réew kat fonk na leen waaw ma gis bis bu mel ne tey di bisu xaadimu rasul muy bis bi mu dellu si woon ak mbooloo mi fi daje ni mu baree ci àddina ni mu baree gisuma fi benn benn force de sécurité bu leen war a aar jàpp naa ne te nu am droit ci réew mi wax dëgg yàlla wala boog xëy na bu nu ci boolewul itam foofu itam kéemaanu sëñ Tuubaa dafay feeñ ndax lu baax la itam loolu man critiqué wu ma ko remarque bu may def la rek diko laaj te yaakaar naa ne am naa droit laaj ci lu mel noonu ndax ci réew mi la bokk waaye nag critiqué wu ma ko li tax critiqué wu ma ko sunu sang xaadimul Moustapha jox nañu ay jikko yoo xam ne nàmpatal nañ ci Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ay jikko makaarimul axlaaq ba nga xam ne la gën a bon ci doomu aadama mooy ak rëy ak naaféq ak di wax lu dul am loola mu fexe ba dindi ko ci ñun léegi rëy woyofal woyof gi nekk ci ñun waaw ñu woyof toy loola mu def jikko yooyu ba nga xam ne ay nit kenn ku ne mu nit boo gis dana yéene morom ja lu ëpp la mu yéene boppam ba tax na loola ji fi jàmm jàmm joojee fekk nu fii nu tey nekk tey ba ay junni junni doomu aadama ñi ngi tuubaa waaye doo gis xat gu damm kenn du ca laal morom ja donte sécurité boobu kenn abaluñu ko wala kenn jëmewu ko ci ñun waaye sécurité amaanillah moo gën lépp mooy sécurité suñu borom tabaraka wa taala te Serigne Touba fexe na ba ñu am sécurité boobu kon daf ñuy jàngal ne nekkete ñun kët ah mën na noo demal suñu bopp ci wàllu gu ne buñ ci royee ci domaine bu ne rek danañ ci mën a dem ak suñu bopp buñ toppee mbirum agriculture li ñuy wax autarcie danañ ko mën a am di bay loo xam ne danañu doy sëkk ci wàll googu ci joxoñu xaadimu rasul ci joxoñu xaadimu rasul dañu wan ne bu nu defee te tawakkul weeru ci suñu borom tabaraka wa taala dara du ñu jom waaw ndax luy jikko yu rafet def na ko ci ñun wan nañu itam ne cohabitation bi ne képp koo xam ne euh, ku baax la nee na lépp ko ku bëgg a bokk ak man rek baaxal ndax kenn ku ne la nga baax baaxle laa bokk ak yow فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولم يحيد سواء انتمى إلى الجلالي أو انتمى لأحمد التجاري أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم مقطعا على الثواب كي وخلونه كوابيتاسيون يا خلوكو دفنا كوابيتاسيون بي مباخ باخ سن بروم فك سي نكو تي والو غوغو باغا خامني امنا سيكوريتي واخ دك يالا واي مبولو مو تولني فنيو نيك تقدم تقددم